grand Pape Cheikh Fall ñu ngi lay nuyu depuis euh, la France donc ñun ñu ngi au Sénégal donc yow yaa ngi foofu si bitim réew ñu suivandoo en même temps lii de actualité yi xew fii si dëkk bi rawatina euh, fi ñu dëkk muy Mbacké ak Touba donc ñu gis ne actualité bi nga xam ne nii moo am si ay bis yi bëri na mais li ci gën a fees bokk na si li nga xam ne nii mooy euh, kaaw trésor public bi ak li nga xam ne nii moo di kaaw état état civil bi donc bu njëkk bi mi nga xam ne nii trésor public euh, am na benn waaye boo xam ne mi ngi woon fii si trésor bu Mbàkke am na mu si laaleel tolloog si ay deux millions cinq deux milliards cinq cent mille e quelques yoo xam ne ni moom lañ koy toppee yow loolu ban jàngat nga si mën a am rawatina si dëkk bi ñu nekk di Touba Mbacké nga xam ne ni dafa war nekk référence ci wàllum jub ak euh, jubala mais dafa mel ne léegi day bëgg soppi xaar kanam. wa taala wa maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di sant aussi ñëpp ñi nga xam ne ñooy faral di topp programme mu Sénéjet euh, di kontaan lool si laaj bi nga ma laaj ñi jëm ci actualité bi nga xam ne moo fës si semaine bi am foofu ci Mbàkke Bawol sa laaj bi njëkk bi jëm si ban jàngat euh, la ñuy def si lu jëm si euh, coow li am si trésoru Mbàkke dañ accusé ab inspecteur des impôts bu nekkoon foofu ci Mbàkke ak li nga xam ne mooy bi am ci maire bu Mbàkke te jàpp ci premier adjoint au maire di Mor Sow ak benn agent bu mairie bu Mbàkke di sama rak nekk sama xarit di El Hadj bi may njëkk a wax mooy d'abord euh, jàngat may njëkk a def si affaire u Trésor Mbacké mooy que ne euh, nekk na semaine boo xam ne booy xool actualité bi foofu ci Mbacké lu métti la si askan wi parce que actualité nationale bi dafa focaliser si département wu Mbacké si commune de Mbacké maanaam Mbacké googu. si semaine bi dund na fi ñaari xew-xew yoo xam ne yu bon la si wàllu nekk ni askan si wàllu gestion si wàllu toppatoo alalu askan ak sàmm alalu askan bi si njëkk mooy si trésor Mbacké boobu ñu indi si ay xibaar ñu jot mu siiw si Mbacké lool euh, si enquêteurs yi gën a ne lu xaw a jege si cinq milliards de france CFA ñaari inspecteur des impôts ñu njaaj nañ ko kenn ki mu ngi nekkoon Mbacké tudd Abdou Aziz Diop de 2016 à avril 2021 2021 bërki dem dong la donc la jóge Mbàkke ñu ko topp ko lu toll si 2 cinq cent millions yoo xam ne ne leen kat daf kaa ñooj njaaj ci diggante 2016 ba 2021 mais xam nga loolu xaalis bu mel noonu bu ko mënee jël si Mbàkke googu ak Touba si département Mbàkke googu nga xam ne 16 communes am si département bi ñaari communes yi sëpp doole di commune Mbàkke ak commune Touba. Mbacké nekk siège bi nga xam ne mooy inspection des impôts nekk foofu maanaam le trésor public de l'état nekk ci département nekk foofu jàkkaarloog gendarmerie bi un fonctionnaire de l'état du Sénégal nekkul fonctionnaire ba dafa nekk au niveau central mais au niveau de à la base bu ma nee tey xaalis bu toll noonu ñu ne ji jë ñu nañ ko entre 2016 ba 2021 ci département Mbacké ci commune Mbacké ak commune Touba sax lay tudd ci 2 milliards 500 millions te askan waa Mbacké tinuñu presse yëgul tinuñu alkaati yëgul tinut gendarme yëgul tinut procureur yëgul tinut maire yëgul tinut préfet yëgul tinut mais moi je me pose des mënta nekk tey mënta nekk ëllëg y une complicité coupable. kon mu mel ne jàngat bi nga jot a def day mel ne affaire bi dafa am ay complices yoo xam ne dañoo ne ci biir. waaw complicité coupable boobu nag ma wax euh, maanaam Abdou Aziz Diop mënta nekk père bu Mbàkke percepteur bu Mbàkke xaalis bi toll noonu jóge si gox bi deux milliards cinq cent millions te amul ñum jëfanteel ñum séqal mbir mi amul ay complice c'est pas possible mënut a nekk enquête bi sax boo ko liiree bi dig def te man ma jot si ab copie dig dem na ba cité sax ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo ngi leen cité te inférence ma jot sax xam ne na ñoom dana leen jàpp si semaine bi di ñëw ñi nga xam ne cité nañ leen si mbir mi mais au delà même de ça la question que tout le monde doit se mooy Mbàkke Bawol nan lañ mën a toogee tey ba deux milliards cinq cent millions nit di ko jël si gafaka ask alalu askan wi te kenn yëgul kenn tinut mais là y problème ça ne peut pas être que à notre niveau ñun ni ñu waroon taxawee taxawuñ noonu xoolewuñ noonu presse bi ni mu waroon taxawee suñu bopp lañ koy njëkkee di ceytu ngir xool di gëstu def travail d'investigation def nañ fayit bu grave foofu beneen bi mooy askan yu nga xam ne tey ñoom ñooy parce que kii détourné yow rek doo détourné sa am nga ñoo xam ne ñoom ngay liggéeyal ndool wala am nga xam ñoom ngay jëfandikool si wàllu si yenn activité si ngay def ay recouvrement ay ay paiement fi mais donc am na complice ñum seqal mbir moom mais ñooñu ñan lañ anañu ensuite euh, justice sénégalaise nañ gën a fort cest à nit mënoo ko jàpp tey nga tëye ko ne accuse nañ ko nangam nga war a ceytu ay biens balaa nga enquête boo ko biir nga xam nit ki lu mu am si alal lan la anay këram anay terrain anay otoom anay fu mu dënk xaalisam yëpp euh, euh, maanaam justice bi war a ma tax daan ne ah dix mille jàpp nañ li daf ko daf koy jël si xaalis xaalis bi jël en attendant ñu enquête biens yi yëpp mettre nañ ko su sous scellé te tey dañ kër gii yoon teg si loxo si kër gi yoon teg na si terrain bi kër gii yoon teg si oto yi parce que ñu xam ne kii loolu alalu askan wi ñu koy jànkin di ñu koy jiiñ na moo ko jël yoon moom teggul ñu si loxo ne da koy bloqué bul xool ba xam liñ koy topp ndax jëlee ko si alal askan wi euh, détenu lu mu ko lu mu koy jëlee il faut que justice bi gën a dem si loolu parce que moo am si àddina bépp yëpp muy France muy États-Unis ku ñuy tomp wàllu détournement wàllu fraude wala dañuy jël say biens ñu mettre ko sous scellé daal koy dënk yoon en attendant ñu cooyte ba xam alal ji ñu la jël xam yàgg ñu jëloo ko est-ce que yow nekkul ne. si nga jëndee wala si nga fexe ba def li nga def kooku justice bi na si gën a taxaw gën a xool ensuite waa ji maa ngi dégg ñu ay chef sëriñ bi alalu askan ku ko njuuj njaaj alalu baykat alalu sàmmkat alalu fajkat alalu grim alalu askanu Sénégal kooku dañ si war a taxaw ñu leeral mbir ba mu leer nañ wax dëgg yàlla amul médiation amul négociation am danañ bàyyi yoon dem ba sës ñu xam ne alalu askan kenn waru ko détourner kenn waru ko détourner rawatina waxuma la sax Sénégal mais Mbàkke Touba à la une des journaux détournement de deux milliards cinq cent millions si Mbàkke Touba ku ñàkk googu nga xam ne askan wi amuñu dara kenn ngi taxaw na ko culum na ko foofu kenn xamu fu jóge askan wi mais kooku warta am intervention warta am négociation warta am dara kooku dafa a dem ba sës ñu xam xaalis bi fan la ko waaj dugal fan la xaalis bi dem loolu amul li muy wax si affaire Abdou boobu. ñu gis ne tamit su dee si côté état civil bi tamit dafa mel ne lu mel noonu tamit lañ fa lañ fa xaw a nemmeeku mu di ab luubal mu mel ne doo du du c'est la première fois mel na ne amoon na fi ba pare amaat fi mu mel ne répétition la situation yu mel noonu nan nga ko mën a jàngatee si biir dëkk bi. mooy li jëm si affaire maire bu Mbacké tañ joxoñ ci tuuma l'argent au maire Mor moo mon ami mon frère mon grand ak sama rak El procureur bu Mbàkke ubbi si enquête ak tribunal bi actuellement ñu nekk si loxo yi yoon yoon ubbi enquête yoon ni si amee ak bar ak ak ak tey ñoo ngi leen si félicité di si di di di ci càkku mais au delà de ça même sans aucun soubassement méchanceté méchanceté jalousie tout parce que ñoo bokk dëkk Mbàkke xamante nañ saa li muy andi mooy yoruk alalu askan wi si alalu askan ni ko nit ñi yoree loolu war nañ ko xool war nañ ko mën a gën a xoolaat xool ñi dënk ñan la xool ñi yor alalu askan wi ñan la xool ba xam ñi bu leen yoree nañ bëgg ñu yor la ko wax dëgg yàlla euh, war nañu romb tey en un mandat ñu jàppale si ñaari yoon affaire ay affaire papier faux papier faux usage de faux franchement loolu ça n'honore pas la municipalité de Mbacké te bu daan am si yeneen si yeneen gestion municipale yi mais municipalité bu Mbàkke bi apparemment c'est pas la première fois c'est la deuxième fois muy am lu mel nii franchement ça n'honore pas les élus locaux sa n'honore pas les les les les les les maires et les maires ñu jëm si élection yi bees jàpp ne. équipe bii toog loolu nañ ci def teg seen tànk ne nii lañ bëgg doxee ñin dénk maire bi ñu koy doxal ñu doxee ko noonu mu am transparence am leer te loolu li ko war rek mooy ñàkk kayit gi si réew mi ak si askan wi donc y a beaucoup yu waral ay kayit faux usage de faux parce que xale bu juddee amul kayit nga takk jabar amul kayit xale bu bu dem ba entrant sixième am ba ba ba def examen amul kayit mais loolu mooy indi yu mel nii loolu nag moo koy indi mu dem si mairie ba rek daal di lijjanti kayit def foofu usage de faux ab consulat wala ambassade ubbi enquête bu ko defee ñu xool daal di jàpp daal di na ma def foo usage de faux si yooyu rek lay mujjee donc man Thierno si ñaari question yooyu nga pose question boobu nga posé si wàllu euh, détournement bi am si trésor public bu Mbacké ak bi nga xam ne moo am ci euh, si coow li am si mairie bi actuellement loolu laa si amoon lañu si xalaat. jërëjëf Pape Cheikh Fall donc si question yooyu dugg yow si sport ñu gis ne actualité semaine bi Euh, lii de avenue de Mbacké am na bis bu bees euh, ki nga xam ne ni mooy président Mamadou Badiane moom mu leen ko digoon na leen ko mu mel ne ne kon nag moom tàmbali naa def li nga xam ne ni moom la waxante woon ak askan bi donc mel ne jour yi ñoom ñoo a def effort tuuti ndax gis nañ ne ñaari match yi leen defagul mais dafa mel ne ba léegi amaguñ li nga xam ne moo di victoire ban jàngat nga ñu ci defal. ok c'est la bonne nouvelle de la semaine semaine bii loolu dong moo ci neex vraiment avenue de Mbacké am nañ ab bus. bu fekkee seeni résultat sax baaxagul parce que gis nañ deux matchs matchs yi vraiment c'est pas concluant doxut du leen gañ xale yi nañ gën a góorgóorlu xale yi football xam na kat moi je félicite le président Badiane Badiane vraiment vous avez toutes nos félicitations et tous nos encouragements parce que kat la nga waxoon avant ngay fallu bu ñu ko defee ni laa ba def yaa nga ca te yaa ngi si teg sa tànk bus bi ñëpp gis nañ ko. kon wàllum transport wàcc nga ñu si wàcc nga si équipe bi yaa ngi recruter tamit di indi ay football kat di leen fay vraiment def hivernal jël sa àll def si on ne demande pas mieux on demande juste cela te yaa ngi si vous avez nos encouragements vous avez nos félicitations li si des si xale yi football la xale yi nañ am jom nañ am fula xam ne Mbàkke dafa war a yéeg nag yéeg bi yàlla defal nañu ànd nañu président boo xam ne vraiment il a le réseau il am na fulla gi am na fayda bu ko def mooy mais yéen am leen jom nag football gañ loolu yomb na entrene leen football leen gañ leen la leen sant encore félicitation euh, sama rak sama xarit Badiane Ibrahima maa ngi lay féliciter gëj naa la gis mais vous avez tous nos encouragements ñoo ngi lay suivre ñoo ngi lay jàppale si malgré yaakaar naa ne j'ai fait le tour d'horizon si questions yi nga ma laajoon maa ngi lay sant di la gërëm di la félicité si liggéey bu solo ba ngay amal ak ñi ngi ñëpp di leen encourager yii nag danañ ko faral def ay bis bu nekk danañ dikkaat si actualité semaine bi nga xam ne moo gën a fës si département Mbacké bi si goxu Mbacké bi surtout rawatina si commune bi su defee danañ si def lu ñu si xalaat and suñu jàngat bu ñu siy def di sant ñëpp di laaj ngeen ñuy suivre dañuy topp si site bi di Sénégal di sant ñëpp di leen ñaanal wax dëgg yàlla euh, de bonnes fêtes de fin d'année yàlla defal ñu 2022 bi ñëw dàq li nga xam ne mooy 2021 bi yàlla yàggal fi Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké yàggal fi xalif général des Mourides Serigne Amdi Moustapha Fall yàggal fi mag ñi baax ñi màggal fi kilifa di yi sàmm ñu sàmm njaboot gi asalaamualeykum wa rahmatulah wa taalaa